ngay waxal dofoo man lu ma la wax am na maa leen gën man xam naa leen bu baax Adama tiida moo wax waaye man wax loo ma tiida ndax yàlla dafa wax ndax ku xool bi di jaar xam ni bambali mooy baayam waaye te yow dooma nga ndax dooma a tax nga gis dëgg dëgg teg ci sa tànk yow boo ne tiida dafa ëmb da ngay duur waxoo dëgg yow doomu cott ndayam bi nga doon yow nee naa la ci man nga teerale ci man yaay tiida bi nga xam te ni innocente la doxul waxul demul dikk ci moom nga teerale déggoo ma de yow imbécile maire li may wax xam naa ko maire man ngay waxal de man maa maîtriser Dakar toog fii xam lépp ci almadi sa booy sa doom ji di man di def lu ko neex ñu bëri tëddee ko dégg nga ñi ma la limal danoo tuuti de mën naa laa limal ñeneen mais samay xarit lan du ma leen tudd yow xanaa xamoo aadama man du ma fen sa doom ji ànd na ak yaayu bambali dem defi test DNA xamu nu mu tudd ñu ne doom ji bambali sekk juru ko léegi nag muy wër moom kan mooy jur doomam nii may waxee ko sa doom dafa amul lu tax waxoo ko lii may waxee yow diini bu leen nekk leen ay nit ngeen bàyyi seen dof-doflu bi baax na ba guddi. Adamo déggoo ma de gis nga li ngay wax nii man feregew ma ba ñàkk ba yow nawloo ma la man duma ma say vocal du ma du ma du say wax parce que yow doo nit waaye dinaa la xamal ñaar xamalaat la ñaar gis nga sama doom ji aha kay. caga yi ak ñoo bëri ci dëkk bi dëkk bi Sénégal fii ay caga du nga fi nekk bu la neexee da nga taxaw ni moom caga la waaye ndeyam du caga amul mbokk caga kon aada waxal lu la neex sama doom ji ca kaw ca kanam ci lu baax bii boo na ko téeméeri góor tëddee déggoo ma de ko junniy góor tëddee déggoo ma de mais du teree man dama koy doom dëgg nga dëgg ci sa taat ngay duul naan moom dafa ëmb ah? a duul yow a duul nga yow aadama kuy ba dina teeral du nga ñu xam nga gisaat doom jurkatu xaraamata njaay bi nga doon sa lëfal nday saa yoo yeewoo yow yaay dooma raam du ma du ma yow dooma raam bi nga doon du ma ci génn di ko wax parce que yow bàyyi woo Macky Sall bàyyi woo ministre yi woo sëriñ si bàyyi woo ñu jàng ñi bàyyi woo kenn yow nit ñi baax ñu nekk Sénégal ñëpp ba woo kenn yow ku ne ngay yow ba woo sa ndey ba woo sa baay yow ba sëriñ si ba nit ñu baax ñi ba kenn kon nag bu la tiida ñi nga xam ne benn sagaru ñi dong la di dox ci kaw àdduna yow xam nga ni war nga war ngaa mën a taxaw wax ci moom lu ñaaw ndax ku bawul sa ndey bawul sa baay ba woo sëriñ ba woo xale bu ndaw bi nga xamante ni xamul dara xëy na napp àdduna rek moo ko dal nga profitoo ci du duur ñu nekk ci sa ginnaaw di la poussé nga fexe ba am numéro am vocal ko di am looy wax sa dëjëw ndey saa yoo yeewoo man maa la wax man yaay tiida ñemewoo dëgg sa doom ñi ko katt ñëpp mën naa la ko limal benn par benn ëmb bu bees bi mu ëmb nii doo ci wax beneen bi ci tegu mooy doo wax ci test DNA bi nga xam ne nii ànd na ko mu def ko ak yaayu bàmbaale a yaakaar ne dossier nekk xaw ma ko yéen a yaakaar ne dof ngeen di waxal yow toogal di xaar ba guddi rek meer man du ma la tontooti du ma waxaat ak yow li tax mu lay jox téléphone bi ngay wax moo ko xam xam na tax mu lay mu lay waxloo di la pousser parce que ku jaaxle sa yaay ngay ngay Adama yow yaa mën a duul te rafet duul yow yaa mën yow yaa jongama ay duul yow yow nekkati duul kat original yaay bàmbaali may ma yaay bàmbaali man maa dem ba këram te lan ma wax bu subaa dinaa toog ci télé bi wax ko déggoo ma de gis nga yaay bàmbaali lan ma wax dinaa toog ci télé bi wax ko su boobaa dina xam ne yaw duul kat la yow yaa na a duul te mën a fen mu naan kese bi ànd nga ak yaay bàmbaali dem defi ko say duul dëng na torop duul day jub yow da nga doon waaye ay yàpp nga Adama heure boo yeewoo bay boros xamal ni sa kooy baay ngay borosoo. sama kàddu gu mujj nag laa lay jox yow Adama man jéeg bi nga xam ne sëy ñaar fukki at ak ñaar mësta tas mësta fay mooy wax ak yow man jéeg bi nga xam ne maa jur sama doom ji yar ko ba mu màgg musuma wax mu tontu ma maay wax ak yow jikko nag yàllaa koy def ci doomu Adama jikko bu ko bu ko yàlla moo ñaari man bëgg na Adama na ko million sénégalais yëpp kat sama doom la maa ko jur sa lëfal nday saa yoo yeewoo déggoo ma bi mooy sama kàddu gu mujj nag maanaam yow sa digg data nday saa yoo yow aada boobu waaw boo duul da ngay duul duul yi jóg say duul dara jongamawu bi nga xam ne sëy na ñaar fukki at ak ñaar jun doom boo xam ne ni day ca day cagala di màndi bëgg lu yomb parce que xaalis bi mu lay jox tax doo leen wax seen waajur yi doo leen wax seen doom yi dëgg parce que day bëgg sa fa naturel du liggéey bëgg a siiw ah kenn du ko siiw kenn du ko forcé du siiw du nekkul ne da ngay joxe sa lëf pour siiw nekkul ne da ngay joxe sa pour am sa fa naturel nekkul ne da ngay joxe sa lëf pour euh, am iPhone nekkul ne da ngay joxe joxe sa data pour nit ñi ràññee la wala nga am loo jox sa yaay wala lu muy lekk kii caga ñi ko katt bëri nan test bi waxoo ci ëmb bu bees bi waxoo ci bàyyi ba guddi ma leeral lépp mën na yimbi liggi nga nekk fi naan ay waaw dinaa génne ci tale yi ku ci def sa njaaxum daal jigéen jël sa ne waa sama doom dafa baax cagatoom bi nangam nangam mus sa cagatu yaayam nangam li nekk ci dossier bi lépp xam nañ ko do man mii du ma la vocale te guddi jotul merci beaucoup. Adama da nga koy a a man bokkuma ci man jéeg bi nga xam ne sëy na ñaar fukki at ak ñett te mës tas mës ta mës ta yenu fay tiire mu ngi nii toog sama kër maa ko mu ngi fii toog maa ko kanam ginnaaw ko xam nga xeex bi dama ne woon duma ci dugg déggoo ma de dama ne woon duma ci dugg ndax man bàmbaal dama koo bàyyi ak yàlla suñu borom ndax sama sët bi mu jur ba pare lànk ñu jur ko dama ko bàyyi yàlla suñu borom sama doom ba muy ñëw di def di def euh, kii bi sax man yëguma ko waaye nag comme yow yaay yow yaay yow yaay yow yaay pëli pa nga jeegu ñay yow yow yaay solal fu nekk mbubu avocat ci réew mi Sénégal fii taxaw di wax lu nekk bàyyi woo président bàyyi woo sëriñ si bàyyiwoo kilifa yi bàyyi woo sa ndey bàyyi woo sa baay bàyyi woo kenn kon sagaru nit bii du ma ta wax waaye dinaa la xam xamal ñaar neen li ma la wax rek na ko junni sénégalais tëdde waaye sama doom la te kenn gënu ko ndey kenn gënu ko baay raam bi nga doon yow bi nga xam ne yàlla dalaa natt nattoowu la lu dul taxaw di wax nit ñi lu ñaaw nattoowu la lu dul taxaw di saaga nit ñi nattoowu la lu dul taxaw di toroxal nit ñi waaye di nga xam ne mënoo maa toroxal yow yàlla na sa koo yi wadd ci mbedd xaw ma foo mën ni nekk mais yàlla nga dox ba ci yàgg sa dambali ne ba tukki suuf wadd maa ngi moom rek waaw kay foofu nga laal nag foofu neex na ma nit ku bon kee nit ku nit nit nit nit ku tekkiwul dara nit ku safara gi nit ki yàlla lakk muy dox di dund foofu nag moom dama fay dugg ak yow fi nga dugg noonu ne man daf may jox xaalis dima dima fayal ndox dima fayal courant duul nga ba def ko ci bool jël sa fourchette di ko tibb di ko lekk man ku ma xam-xam ni liggéey la ma xamee déggoo ma de tii de musumaa fayal ndox musumaa fayal courant musumaa yoral dépense déggoo ma de tii de mii Sénégalais yëpp man ñi ma dëkkal ak ñëpp xam nañ ñi man tiide mii fukki dërëm moom du dul ko ci samay loxo lu ma am man maa ko amal sama bopp ak bàyyam bële déggoo ma de yow doo ma ràmbu ak sa cottu ndaay ba li may wax rek sa sos yaa ngi nii li tax ma nawloo ma la parce que lii ngay wax nii data du ci dëkk ay duul la man say duul dama koo jël paqueté ko ba mu jekk ma teg ko ne la parce que yow duul da nga yàqatu der nga waaye sa bës dana ñëw yow sa bés dana ñëw dëgg Sénégal njaay jii ba ñëpp teg ci seen bët man naa la wax lii soo ñëwee daf may fayal ndox di ma fayal courant duul nga fii da jox ma ma lekk contrôlé man maa sama xaalis di ko jox te may wax nii ñi ma xam xam nañ ki dara li may wax nii ñi ma nekkal xam nañ ci dara kon li nga wax nii da ngay duul tegoo ko fenn Adama maanaam ci gàttal sa dëgg la fal saa yoo yeewoo ok léegi loolu mooy vocalu maire bi léegi dana ñëw ci vocalu gaayen bi nga xamante si nii beneen garant bi la charna naka la man la Jaraaf Farmaren euh, si kaw Tida bi laa la bëgg a laa la bëgg a expliquer muy wax dara dara du si dëgg dara du si man staff ba Malick Seck laa nekk ba Malick maa ngi si nabal te Tida xam naa ko bu baax. Mixa fi la doon fréquenté di jaay boppam xam naa ko bu baax di naan volé di saa naan naan naan sangara xam naa ko bu baax xam naa ko bu baax yàgg nañu ànd tam soirée bambale muy dem. xam naa ko bu baax a baax a baax soo ko woowee nga laaj ko xam xam nga jaraaf jaraaf seen xam na ma day wax xam na ma. sans comprendre si daal lu muy wax du dara dara du ci dëgg dara dara dara du ci dëgg bu bëggee nag nga dugal si ci live après. non yow du mën a dugal léegi dañuy déglu vocalu Mbaye Kouthia. Mbaye Kouthia fan la nekkoon fii. nag am na lu ma wax de. ji ñam nga ji booy naa ko mbay moom gëree la ñëpp la kat te du nee naa ko mbay moom mën naa kat ñu bëri. ah kon booy bi kon moom day tuumaal nit ñi rek kon moom jaga ah, ah, baax na ok. waaw ci kanam yow kay katt nga ko waaw. kii mooy Mbaye Kouthia moom moo mujj katt booy bi Mbaye Kouthia mi ngeen di gis muy def émission mi ngi nii moom moo ko mujj katt moom mujj katt Tina Mbaye Kouthia dégg ngeen ko Mbaye Kouthia ngi nii moo ko mujj katt Mbaye Kouthia dégg ngeen ko damaa bañ ba dama koo jël. Mbaye Kouthia moo ko moom. ak am na Mbaye Kouthia sax moo ma jox numéro am moo ma jox numéro booy bi moo ko mujj katt Mbaye Kouthia ko mujj katt ñam nga ñam nga ci booy bi de. waaw noonu la yow. mbay ku caa moo ko mujj a kat la ñëpp la kat. ko mujj a kat ñëpp ko kat. ko kat xanaa xamoo am na ñoo xam ne samay nit man samay nit lan moo tax tudduma leen sama ay xarit lan moo tax man tudduma leen mais kon dinaa leen tegal liste ñi ko kat ñëpp kii yaay ji. moo ko bàyyi ci li mu nekkee man yaay ji saaga yi ma saaga ak li ma wax loolu amul problème loolu yàgg naa koo dégg mais man damay bëgg chaque jour rek ñoom ñuy dégg dëgg ci seen doom yi man du ma bay baylal doom xam nga lan mooy bay baylal sa doom sa doom ñëw indi iPhone bu bees ah wala savon naturel wala yére bu bees wala bu jox la xaalis bu bëri doo ko laaj fan la ko jëlee liggéeyul amul liggéey kenn engagé wu ko jaayul deful dara mu yor xaalis ne la yaay jàppal ci lii xanaa di nga ko laaj foo ko jëlee xanaa di ko laaj fan nga ko jëlee. xanaa di nga laaj sa doom ji fan nga jëlee xaalis bi kat moo la ko jox dafa am loo xamante ni losigul xale bu jigéen bi ñëpp ko kat mi ngi nii Xadija bi ñëpp a ko kat billaahi wallaahi wataalaahi am na loo xamante si nii bu ma ko rusul woon billaahi dinaa la tuddal tur yoo xamante nii day weesu Pama Dieng day weesu Mbay Koca day weesu Maas billaahi tuddal la ñu siiw ñoo xam ne kat nañ ko billaahi mais ñooñu sama ay xarit lan bu ma leen tuddee rek dina ma woo sama ay nit lan sama ay xarit lan ñëpp ko kat ñëpp xam nga la la nekkoo bi dina euh, fële euh, almadi mandi naan ci mbedd almadi yi day taxawal yaay jaa ngi nii yaay ji waxul lépp de nee bu subaa dina génn ci tale yi leen a laat li ma leen wax rek ma ne li ma leen wax rek gis ngeen Bambala sekk bu nekkoon sagaru maçon wala koo xam ne nii am uude la ah wala koo xamante nii day jaay ay soccog buusu ndox billaahi du nu génne ne moo ko ëmbal mais xam na ne am na toq bës moo tax ñu génne naan ay waaw Bambala ñi ko katt ñoo bëri ñi katt xale bu jigéen bi dafa bëri eh du man maa xaawi suturaam de déedéet moom moo xaawi suturaam moom moom moo xaawi suturaam moom moo génn mu def interview boppam ne dañ koo ëmbal bay Bambali sekk di jël kooyam du ko dugal ci data bi muy encaissé muy neex génnul woon de naan bàmbaali sekk kattana ma tey lan kattante ah déedéet ba muy neex ñoom ñaar la mu bàyyi ba mu am doom ba doom ji màgg mu génn ci télé yi woo média yi parce que Bambaly Seck daa siiw boo woowee média yi ñëppay ñëw pour di ko interview mu ne waaw di koo ëmbal bañ ko nangam nangam au début mosut a dafa man mu guma ko naafiq damaa bëgg ngeen di wax dëgg man damaa bëgg bu ngeen di ànd ak aadama ngeen xam dëgg mu guma ko naafiq ba mu koy katt kenn fekkewu ko ba koy bi di dugg ci biir data bi kenn fekkewu ko léegi nag ba mu amee problème génn woo média yi ñii di ay caga ñii ay caga yu ubbi seen lëfal nday la ñii yaaye boo ko déggee rek da ngay xam ne kooba la maire bii ak saagaam yii boo ko déggee da ngay xam ne yaay ji rek caga la que ku yaayam caga mu jur doomu caga soo leen dégloo fa koole yaay bi da ngeen xam ne yaay ji kooba la soo leen dégloo yaay ji da ngeen di ne yaayam caga la kii kooba la vocal yi ma leen tegal boo ko déggee rek da xam ne kooba la boo leen dégloo vocal yi rek da ngeen di xam ne yaay ji kooba la gars yi gars damaa bëgg ñuy waxante dëgg Adama loo ko mën a waxal baax na mais na nga ko seedal ne nitu dëgg la loo leen ma la waxal boos day néegri c'est moo mën naa ko accepté mais na ngeen seedale ne nit ku dëggu la Adamo dëgg lay wax te dëgg rek la xam man buñ ma saaga woon mille saaga parce que maire bi dama koo laal normal mu saaga ma li ma koy wax mooy preuve bi parce que man dëgg laay wax wax naa ba bàyyi ak maire bi te saaga wu ko nee naa ko nag sa doom caga waaw mais du ma saaga meer bi yaa ngi dégg wax naa ko nag ay dëgg yoo xam ne nii dëgg na ko ci vocal bi parce que loolu moo am li ma ko wax moo am maire bi moo la gën a xam ne moom moo am day dof doflu xam na li ma wax bu baax keneen ak keneen xam na li may wax man du ma jekk-jekk rek di waxantu man lu wax rek am na fu ko teg lu ma wax rek am na fu ko teg waaw kay man damay wax dëgg pare ci li ma leen di wax nii xoolal gis nga yaayu bàmbaalee ànd ak booy bii nii xale bu jigéen bi ak yaayam moom ñu dem defi test ñu ne ko doom ji bàmbaali sekk juru ko billaahi wallaahi wa taalaay billaahi wallaahi wataalaahi maire bi ak ak doomam ak Bambaly Seck ak yaayam ñoo ànd ñu dem defi yow xanaa xamoo maire yi dama ne la gars yi siiwul nga xam ay waay bu doon nga xam ay bu doon Bambaly ko yàlla natt woon muy jàmbu karoot wala muy bay ay doolu dànq wala di watt ay olive ki pompoli muus di jaay ak i mandri doo gis média génn xale bu jigéen ba toog fanaan bàmbaale ma ëmbal rus na koo wax moo tax pauvre yi kenn du yéen ñi siiwul ñi barke yàlla bu leen neexee ngeen katt ñépp yéen bu ngeen ëmbaloon kenn du ko xam moo tax siiw du jàmmi borom gis nga yéen ñi nga xam ne da ngeen di jaay gura ak màdd ak buusu ndax ak socc billaahi ku ngeen ëmbal kenn du ko yëg yéen fii mu neex ngeen di dund xanaa xamoo riche baaxul ak siiw parce que man bu ma pauvre ci laay gën a mën a kattee ñu suturaal ma ko bu ma siiwee lu ñëw ñu ne yawa dama ne la yéen a yor vie bu baax bi yéen pauvre yi vie bu neex bi yéen a ko yore yéen ñi siiwul dama ne la doomu faramarin du loolu de doomu faramarin dañ koy liggéey doo jekki-jekki rek nga ba bambali même bu amul boos am na toq boos toq bës bàmbaale sekk am na ko waa ji boo boo leen gisee ba ma fogaale yaay ji waa ji waa yaay ji ni mu jëfaroo rek commencé di saaga doomu raam nangam nangam ngeen war a xam ne laal naa ko parce que li may wax man dama koo teg fu leer soo leen dégloo vocal yi rek da di xam ne kii Adamo li mu ko wax la moo tax muy jëfaru noonu di saaga di wax n'importe quoi di teg la ay vocal parce que xam na li may wax man gaawumaa wax de ni ngeen ma gisee nii gaawumaa wax de mais su ma waxee rek su ma waxee rek xam naa li may wax. waaw man duma ma jekki-jekki rek di tararani nii lu ma wax rek am na fu ma ko teg waaw dama ne damaa bëgg ngeen nekk ay nit dama bëgg ngeen uus seen maay di loolu laa bëgg wax day leer kii bay bàmbaali sekk di jël koy ba di ko dugal ci data bi kenn fekkewu ko lan moo tax du du génnul ci télé yi maanaam buñ ko kattee vendredi mu génn ne ah tey la vendredi 10 octobre 2022 bàmbaali sekk jël na sama koy dugal ko sama lëf lu ci mënti xew nag na ko na ko di seere bu boobaa ñu xam ne katt nan ko nag katt baa ngay daw un mois deux mois trois mois quatre mois cinq mois six mois sept mois huit mois neuf mois doom ji dugg na am na deux ans trois ans yaa ngi souffert am nga mettit waaw kay allo Dakar Buzz man la Tida dama soxla interview allo Seneweb man la Tida dama soxla interview ñu ñàkk da ba dee ndax loolu la ñu wër fu ni toroxalee doomu aadama rek Dakar Buzz ak Seneweb bi lool rek lan sa war bu ko defee góone sol ay nona tam mel ne gumba gu maskaw taxaw naan ko waaw mbokki Dakar Buzz TV ah on ak accueillir le la la la femme là qui s'appelle euh, affaire de Bambali qui s'appelle Tida Tida ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal waaw salaamaaleykum waaw man de man la Bambali ëmbal waaw ni ma kattee fii de man muñ naa ba sonn dem naa këram wonan yéen a saytaane la tax man koy katt woowu leen woon man dafa am loo xam ne mënu ma koo comprendre non man daal man daal Sénégal moo neex Sénégal moo neex tu n'importe quoi